Euh, defe naa ne communautaire yi euh, li bu baree euh, suñuy taxawaay rek mooy sensibilisation sensibilisation rek mooy taxawaay yu responsable képp koo xam ne yàlla dënk na la nga am ndombal tànk wala yàlla dënk na la kàddu nga mën a wax nit ñi dégg la defe naa ne moment bi ñu toll nii ak cas communautaire yi ni mu bëree. Nous devons sensibiliser conscientiser la population parce que nous bien vrai que nous ngi publicité à chaque fois euh, sensibilisation ministre de la santé nous avons fait. base bi commune donc vraiment nous def que parce que nous li ñu mën rek moy li boko ko moytu ko jangoro bi du la dal lolu lañ nopi duñu nopi diko ko nit ñi diko wax nit ñi pour que ñu appliquer ko té jappu naa suñu togone 15 jours wala 21 jours ñëpp takk masque ñu respecter les mesures barrières défé naané fi ci Sénégal fièvre bi dafay jex tak tu leer population bi ñoo wara a jóg ci xeex bi parce que nag état munta nekk policier wu ku nekk mu nekk topp la pour ay daan ku nekk yaa war a sa état bopp ku nekk yaa war a sa policier bopp defe naa ne sacrifice boobu buñ ko defee pendant vingt et un jours jàpp ne virus bi du am contamination te contamination boo amul virus bi day dee donc looloo tax vraiment ñu am benn plan d'action la commune bi les ci quartier yi de quartier la jeunesse les femmes pour que vraiment combat objectif Nous les sages déjà la première partie Nous jox un masque jox euh, gel hydroalcoolique ou encore la jeunesse parce qu'on va faire le tour pour vraiment dugg ci nit ñi donc pour que ñu dimbale nit ñi ñu sol ay mas